Jili maa ngi lay nuyu di nuyu ñëpp ñi nga xamante ne ñu ñuy kal ci la rajo du bonheur Rewmi FM samedi bu jot 16h jàpp 17h ci seen émission Rewmi People Rewmi People nag tey ndaanaan la am ci téléphone bi comme que jamono yi mënuñoo déplacer ñi nga xamante ni ñooy artistes yi donc euh, on fait tout pour quand même euh, remplir euh, le devoir donc kon chaque samedi ñu indi leen benn artiste tey nag comme ni ma ko waxee ndaanaan suñu ndaanaan gi ñuy waxtaanal mu ngi tudd mu ngi nekk Abdou Abdou Rass Abdou ñëpp xam ko ci la scène musicale sénégalaise mu xawoon raar nag tuuti ci suñu ci rajo bi la raar mais quand même mu ngi jouer li nga xamante ni mooy partition ci ci scène musicale sénégalaise bi kon euh, sans plus tarder ñu nuyu ko Abdou Rass ñu lay nuyu. ah euh, soxna Mimi Seck maa ngi lay fay. Uh-huh. maa ngi lay fay bu baax a baax a ah. uh-huh. d'abord di nuyu. am nañu mbégte dalal la. waaw ndeysaan man mi aussi am naa ci mbégte lool. Mhm. ndax xam nga li olof Ndiaye naan li bo li bokk teen bi ñooy loxo sooy goj. <laughs> maa ngi nuyu waa Sénégal yëpp. ñu ngi lay fay. di nuyu fan si soppe yi ah. mhm. euh, di rafetlu vraiment invitation bi nga ma invité ñuy waxtaan. Hmm? Mhm. Euh, bala mu doon gën a neex sax wax dëgg yàlla ñu jàkkaarloo ci waaye nag situation oblige. non day am day am. confinement bi. waaw ça c'est vrai waaw maa ngi ci de man de wax dëgg yàlla. noo koy dundee. restez chez koy waxe restez chez vous. <laughs> mais est que artiste boo ko naree tënk dina dina dina dina yomb. waaw mais xam nga aussi ab jaam moom day nangu dogal parce que artiste aussi nit la ah. nit la comme ñëpp rek quoi. Mm-hmm. dafa di nag euh, kuy woo doo làmmiñ moom boo noppee rafle. dëgg xam nga loolu moom suñu woyoon na ko fi dee sax yàlla na yàlla yàggal taxawaayam euh, lii nga xam ne dafa lëmbee àdduna maa ngi ñaan yàlla suñu borom suñu borom teel koo arrêté lépp waa fa mu woon mu dellu fa te ba fa jógee ci nag parce wax dëgg yàlla lëmbee na àdduna bi voilà mm-hmm. ba na ñun daal euh, li ñu war parce que comme ñun yàlla dafa dogal ay porteurs de voix la ñu a mën a digle sax ñi nga xamante ne feebar bi loolu lay bañ ñun ñu njëkk ci d'abord mm-hmm. parce que àdduna bi yëpp a ñuy déglu. Mm-hmm. d'ailleurs boobu léegi tooguñu noppaliku ñu ngi xalaat dugg studio yi xool yan message lañu ñuy mën a véhiculer pour mun ko lancé mm-hmm. nit ñi gën a gën a mën a toog seen kër. li nga xamante ne feebar bi loolu lay bañ ñun nga xam ñun nga xam ñun dañ koy def muy set. ak ak moytu jaxasoo yi. Mm-hmm. vraiment waaw toog daal li nga xamante ne daal euh, moom la ñu sant. ñu def ko. ci loolu ci loolu la ñu nekk daal. jamono yi mais Abdou jamono yi waaw Abdou yu bari jamono yi mu ngi ci yëngu ci yëngu wàllu sensibilisation bi donc euh, di créer ay morceaux di def ay single ak ay duo mais yow dafa mel ni gisagul la ci lan moo ko waral. non maa ngi ci maa ngi ci dafa fekkente ne dañuy liggéey pareegul rek mais du yàgg dara incha allah rabbi dinañ ci avant ànd naa sama morom yi ndaanaan yu bari yoo xamante ni vraiment. bokk nañ benn duo yoo xamante ni pour sensibiliser yi nga xamante ni mooy askan wi. comme ñan. ay ku ci mel ne ñoom Baba jàlloo ñoom Birame Dieng Sala sama rakk yooyu nga xamante ne vraiment xam nga ñu ngi ci aar di góorgóorlu. Mm-hmm. di béy parce que parce que xam nga tey jii message moom li ci am solo rek mooy lancer li nga xam ne ku ko dégg ndox bu ko dégg loo xam ne voilà nañu li nga xamante ne loolu corona bi di bañ. ñu maanaam maanaam ñun ñu def ko muy toog suñu kër respecté respecté ordre yi ñu jox. Mm-hmm. voilà maa ngi ciy jox naan du yàgg dara incha allah clip bi dina génn waaw ñu gën a parce que tamit ñun loolu mooy suñu rôle. fii fii combien de temps parce que bon ah xale yaa ngi seen kaw de déjà single yi ak duo yi génn bëri na de Abdou. waaw waaw waaw mais xam nekkul ay nekkul concurrent nekkul nekkul course du dëgg ku ci nekk dafa da am benn waar booy bay di ko bayal sa réew du dëgg. Mm-hmm. voilà ñun concurrent defuñu concurrent xam nga course wuñu set xam ku ci nekk la ngay yëg rek loolu ngay génne quoi. Mm-hmm. ak moment bi ko yëgee ak ak aussi tamit moyens yi nga am pour def ko daal. Mm-hmm. parce que Sénégal ñun ñoo ko moom ku ci nekk da nga jàppale Sénégal sama Sénégal la. d'accord vous êtes combien d'artistes yow ak ñoom Baba Diallo ak. Euh, euh, bari na bari na ah bari na bari na wax dëgg yàlla bari na ay artistes bari na ay artistes bari na wax dëgg yàlla ñoom laaj nga cité rek comme yoo xam ne vraiment ñu ngi ci biir xam nga. Mm-hmm. xam naa ah. nu muy tudd. non mais <laughs> comme d'habitude rek ah corona mu jóge fi rek. coronavirus ah. corona yëngal na réew mi. corona yëngal na mais en tout cas yow en tant qu'artiste namoon nañ la. Ah, oh. depuis lors fan nga nekkoon. waaw non maa ngi sama kër di liggéey. maa ngi sama kër uuf njaboot. ci liggéey bañ a yàkkamti te xam moom du biir day xëy wasin mhm. en tout cas ñun ñun moom alhamdulilah ñu ngi sant yàlla quoi vraiment mhm. bu baax d'accord instant yi euh, lan moo mujjee génn ci yaw ban single nga mujjee def wala yan single nga mujjee def waaw man nag pare dama ko mere de parce que euh, sama single bi dafa génn ma promotion bi rek tukur ba mel laa mujjee génne uh-huh. Euh, Cukumba mi laa mujjee génne teg ci fans yi. Uh-huh. dèjà sax def naa def naa vidéo bi vidéo yi commencé woon commencé woon na daw bu ma am benn programme bu mag bu doon wàcc. Diourbel uh-huh. muy sargal jigéen la 7 mars. Uh-huh. mais malheureusement dama ko mujj a fomm ndax euh, corona bi quoi vraiment. yëpp nga annulé. lépp laa annulé wax dëgg yàlla. moo tax ñuy ñaan yàlla rek suñu borom bi nga xamante ni moom lu am moo ko amal. yàlla nañu ko fi suñu borom jëleel ba képp kuy doomu aadama rek mën a dellu ci say activité mhm. parce que ku nekk xam na ne fu mu nekk nii moom adduna bi ñëpp yëngatu mhm. ñëpp a jaaxle mais rawatina Sénégal parce que Sénégal rëyul ñun mhm. corona xajul ci ñun loolu lay wax ah kon corona xajul ci ñun vraiment déjà Sénégal li ñuy dund ni rek xamuñ ko ñun xamuñ fan lañ jëm xamuñ fan lañ jëm ak moom moo tax vraiment ordre yi ñuy joxee dañ ko respecté ngir yàlla nañu toog suñu kër respecté suñu bopp kuy génn nga yóbbaal Mm-hmm. boo ñëwee nga raxasu mm-hmm. xam vraiment loolu daal mooy affaire bi quoi. Mm-hmm. Mm. amis auditeurs may fàttali ni kon tey suñu invité ñu ngi koy jël par téléphone il s'agit de Abdou Rass waa Abdou Rass sa tur dëggantaan Ndiaye à l'état civil nan la. Abdoulaye Abdoulaye. Abdoulahi léegi nga jël sa bopp Abdoulahi wàññi. lu Abdou lu indi raas ah non loolu nag loolu nag loolu nag histoire bu doy la loolu moom dañuy ñaan yàlla rek corona bi jóge fi ñu jàkkaarloo quoi <laughs> histoire bu gudd la. mais ñu ci mën a wax euh, fan la ñu ñu ma ko tuddee ah, ba may am 9 ans. bi am 9 ans. waaw. Uh-huh. Kaolack Kaolack nangaan nangaan. waaw. lan nga defoon wala lu. Hmm. <laughs> en fait euh, est loolu loolu loolu loolu xam naa ne dañuy ñaan yàlla rek yàlla dimbali ñu. Mm-hmm. ba ñu jóge ci détails yi quoi parce que euh, histoire bu gudd la quoi. waaw <laughs> d'accord alors mm-hmm. euh, Abdou Rass ñu man révélation bi nga xamante ni mën naa sa révélation ci man. mën naa wax ni mu ngi jóge ci son wu trahir. Mm-hmm. alors lool ay année deux mille deux mille deux mille. deux mille quatre. deux mille quatre deux mille quatre mais waa mais avant trahir sax man damaa yëngal dama yëngal avant trahir sax. d'accord parce que xam nga xam nga maras ma fi woon. mën nga ñëwaat en quelque sorte en quelques petits détails ci sa ci sa début de carrière. waaw xam nga euh, yàlla dafa dogal man euh, maa ngi dëkk Diourbel mhm. yaa dégg. Mhm. Diourbel laa dëkk ngi yaroo Kaolack yàlla dogal nag mu ñëw Ndakaaru euh, jot fee ànd ak ay ndaanaan yu bari macha allah. Mhm. jot a ànd ak Fatou Géwél jot a ànd ak Papa Ndiaye Géwél mhm. euh, ba ni ma duggee Prince Art dafa sama premier album mhm. vraiment Sénégal yëpp bëgg ko mu dugg ci xol yi ba léegi nag vraiment ñu ngi bay suñu waar ñu ngi bay suñu waar di góorgóorlu Mhm, di ñaan yàlla rek yàlla suñu borom mooy jàppale doomu adama parce que jàmbaar amul ku yàlla dimbalee am. Mhm. di ñaan yàlla rek mu mu dimbale ñu waaw. Mhm. d' accord léegi deux mille deux mille quatre boobu euh, waa Prince Art ñoom ñoo la détecté gis ci yow talent. Euh, wala ci seen maison de production wala. waaw mën naa ne ñoom ñoo mu détecté parce que aussi ci Papa Ndiaye Guèye la ko yàlla jaarale yow. Ah. xam nga premier cas ci Papa Ndiaye Guèye man maa njëkk a moom. da ko doon Euh, déedéet dama nag moom benn benn cassette muy ci benn morceau. Mhm. man a Kumba Aram Mbaye premier album moom. Mhm. voilà foofu la yàlla dogalee nag ma yàlla dogal nag ma yàlla boole ma ak Prince Art. Mhm. di gaaw di ma sama premier album. Euh, boobu euh, production kase boobu lañ def ak ah? boobu production kase lañ def ak boobu production. boobu kase boobu boobu rek lañ produire. waaw boobu lañ produire waaw. Uh-huh. Euh, mhm. lan moo pour collaboration bi. waaw mais yàlla yàlla xam nga nit ki da ngay am sa soxna sax seeg moom yàlla dogal seen diggante tas mu tas ah, ah mais dafa yàggul di. ah. dafa di parce que bu fekkee benn production kase lañ la defal te ñu gis ne benn saa ku ci mel ni Titi ba léegi ñu mhm. ngi liggéey qu'est-ce qui s'est <laughs> xam nga man sama bopp laa xam. Mhm. man yàlla moo dogaloon ma dugg fa. sama wërsëg jeex na fa pour le moment. te jóge naa ko ci jàmm ak salaam aw ma ak ñoom benn xaar ma yàlla. Mm-hmm. maa ngi kon sama semaine di yaakaar yàlla. Mm-hmm. Mm-hmm. d'accord alors mais ñu gisoon ni ba bu mel ni trahir dafa amoon succès. mais entre temps ñëwaat nga c'est vrai. mais succès bi son boobu amoon ak yi yi nga am tey. Euh, am tey c'est la même chose est-ce que nekkul ni tamit maison boobu la doon produire. Ah, dafa dem yóbbaale bës bi. ah loolu la moom loolu de mën loolu de nit ñi mën nañu ko gis parce que àdduna fi moom xam nga fi moom ni ku nekk ak fa ngay gisee. Mm-hmm. ni ku nekk ak fa ngay xalaatee du dëgg. Mm-hmm. waaye dama la bëgg a xamal ne la mbir mi moom euh, yàlla mooy dogal lu ko soob. Mm-hmm. yàlla mooy boole ay nit di def benn affaire yàlla def ci barke yàlla def ci xéwal. mu cartonné. vraiment def na ci liggéey bu rafet maa ngi ciy remercier bu baax a baax. Mm-hmm. parce que ku xam label boobu xam ne label bu mag la fii ci Sénégal. c'est vrai. voilà voilà ba tax na yàlla na yàlla defal jàmm rek defal ma ko. Hmm? d'accord léegi bi nga jógee foofu noonu ba keneen kan nga liggéeyal ban producteur. Babacar Lo moom mu produit sama deuxième sama deuxième production. Mm-hmm. muy coloré déjà sa sa sa trahir bi génnoon noonu album la woon wala single wala. ndeysaan album album la woon. album bi mu ngi tuddoon naka. trahir tuddoon. amoon ñaata son. amoon six six ci la xuri nekkoon. ci la xuri nekkoon ah. xuri mën nañ ci ñamal tuuti. <laughs> noo xam nga fu mu nekk nii damaa tiit quoi corona bi ma tiital quoi fu nekk nii fu nekk nii sama xel mi moo ne may jaaxle damaa jaaxle fu mu nekk nii. <laughs> seen laaf daa damm. non weesu na damm weesu na damm ñëpp a jommi ñun ñoo si gën a jommi sax xam nga koo xam ne tout da nga doon joué tout le temps xamul seen say di du ci am extra nga jékki-jékki ne dara dootu am ah. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. na ko Sanex doon waxee nii la rumbaay nii la mumbaay xaw nu koy waxee noonu. <laughs> rek maa ngi maa ngi déglu rajo. Euh, ah. géwalu Cees yi naan ñaan ñaan instant yi dañoo jommi jomet. ah mais c'est vrai ñëpp a jommi ñëpp a jommi képp kuy artiste <laughs> jommi nga. wallahi wallahi ah yow tamit gis nga fu nekk ni gars yi sax léegi dañuy tëj sax ndeysaan na gars yi xool dañuy namu woy dañuy namu woy ah dañuy namu woy ba léegi xool seen saal la ñuy toog di def di def la ñuy def def seen vidéo di ko laate mhm. d'accord mais ñu gis tam xuri c'est un son qui a beaucoup marqué euh, euh, inspiration boobu ak tamit idée boobu idée nga woy woy boobu noonu fan la jógee idée bi nga woy ci ci ci son boobu eh waaw xam nga xam nga mami Euh, moment bi ñu toll dañ ne moom woy bu diglewul yeetewul mhm. ay naxaate la mhm. su may dégg ñu naan ndeysaan euh, xale yaa ngi ñëw wala xam nga galaa yi léegi dañoo dox wala lii ah ndeysaan damay ree quoi te keneen ku man it dina ree mhm. parce que Sénégal nag dafa bari ay mélomaan euh, dañ ne woy bu diglewul yeetewul nekkatul woy ay naxaate la dëgg la éducation bu doy moo ci nekk ndax ku nekk xam na ni ak maam. Mhm. histoire bu yàgg la. dëgg la. léeg-léeg jur sa doom sax sa doom jooju am sët yaa ngi sa doom jooju am doom léegi nag maamam day dem sa maam xol ma oh. nga xam te ne sëtam moo koy gënal doomam. dëgg la. kon sët dafa neex entre maam diggante maam ak maam ak sët. voilà tamit ci éducation ci yar ak teggin. Mhm. ndax ku xool tey xur yi. na mu tàmbalee ak na mujjee sa teen ba ak bañ koy génnee loolu moo lay won ne xamadi baaxul mhm. voilà nga mhm. tax na euh, li ñuy wax rek xam nga tey jii nga woy benn woy mu nekk fi téeméeri ak ba fu ñu ko teg mel ni bees mhm. man concept boobu laay demee quoi lu ma woy rek damay ñaan yàlla mu doon loo xamante ni mën a déglu uh-huh. boo ko tegee mel léegi la léegi la génn uh-huh. loolu moo am solo quoi sama woy yu bari nag sama woy yu bari mën nañ ci waxtaan du jeex wax dëgg yàlla loolu nag dama koy sant yàlla suñu borom. Mhm. voilà genre yooyu nag fii Sénégal dafay dafay dafay naqari pour nga jàll day metti. Mhm. voilà rawatina nag boo amee yen qualité yi wala nga am yenn personnalité yoo xam ne yow yow dafa nekk ci yow. Mhm. voilà day xaw a metti daal. d'accord alors euh, bon. Euh, comme ni nga ko waxee am nga qualité yi am nga yenn qualité artistique yi euh, depuis deux mille année deux mille yi révélé wu nga mais jusque là on a du mal à euh, voilà tey dañ lay dégg suba duñ la dégg qu'est-ce qui se passe lan moo lan moo waral ñàkk prestance boobu waaw mais sant yàlla sant yàlla xam nga tey nag affaire bi nekkatul mën a woy rek média mhm. yi bari na rajo yi bari na mais li ko yàq mooy féete bi su nekk am koo féeteel mhm. wax dëgg yàlla loolu la yàlla dogal nangu nañ ko nag nangu nañ ko te doy li ñu am c'est-à-dire yow daa am ku féetewul ak yow wala yow ndaanaan bi déedéet maanaam dama laa bëgg a waxal ne la mhm. far farloo yi dafa bari trop ci suñu métier mi mhm. yaa ngi dégg li ñuy wax rek fii moom mën a woy amul sens su dëgg voilà li ñaan yàlla daal mooy ah yàlla may Sénégal gépp jàmm jubale ñoom ñëpp mm-hmm. lépp lu ñuy amit mu doon loo xamante ni lu ñuy jig la mm-hmm. lu ñu natt am te jiguñu yàlla yàlla yàlla buñ ko am. Mm-hmm. voilà parce que nag njëriñ loo fekkee du dëgg. dëgg la. voilà boo xoolee gis nga ñun dañuy sant yàlla suñu borom bu baax ndax wax dëgg yàlla ay xale yu ndaw lañu tollooguñ fu ñu am bay ñàkk. aar bii yàlla moo dogal mu nekk don ci ñun. yàlla cërale ñu ko ñu ko doon foyee far suñu borom dëggal ko. waaw. mais ci biir dëggal googu nag dafa am nuñ ko téyee muy fulla ak fayda ak bëgg ko. Mm-hmm. voilà. loolu nag bu ñu gisee koo xamante ne xëy na nga am nga cofeel ci loolu am nga cofeel ci ñun. Mm-hmm. ah bañu bañu kenn jàppale ñu. Mm-hmm. doomu aadama lañu. te yàlla wàccul jox kenn mais amee. dëgg la ku mu jox am na fu la jaarale. voilà. moo tax daal ñun ci li nga xamante ne mooy suñu cër ñu ngi koy dox ko wax mhm. voilà lépp luñ suñu borom defal na mhm. yàlla na méngoog ndawalu suñu borom daal mu gën ci ñun daal amin amin loolu la ko mais en tout cas ñun concurrence ñu mhm. voilà créé wuñu buzz dañoo dañoo am talent bu nekk ci ñun ñuy demee ak dal ak teey <laughs> voilà <laughs> dara parce que Euh, suñu bàyyi Moussa dafa amoon lu mu doon wax. Mm-hmm. mu ne artiste du daanu. Mm-hmm. artiste boo fonkee sa liggéey. Mm-hmm. artiste doo daanu. li di def nag ay montage la rek ak ay affaires yu ñuy créé. dugal ko ci bopp doomu aadama yi. mais heureusement alhamdulilah rabbi alamin Sénégal léegi daanaka ñu bari léegi nelawuñu. dëggantaan. loolu nag moo ñu permettre ñu jël suñu temps toog bañ a ci lu ñuy def. mën koo def ak suñu teeyu bakkan. ñaan yàlla mu gën a dugg ci xolu doomu aadama yi. Abdou. Hmm? wàllum production ci laay ñëw ak yow artiste yu bëri euh, hmm? loolu nekk na seen problème hmm. parce que bon ñu ci bëri bu ñu amul ñu leen produit du ñu génnee quoi est-ce que tey di jotul artistes yi tamit xool naka la ñuy indépendant indépendant we ci seen wàllu bopp ba mën di produire seen bopp est-ce que yow ku ci mel ni yow xalaat boobu waaw mais man ci laa nekk man boo xoolee tey jii euh, sama album bi passé nii deuxième album ñaari single yi ma def nii ak single beeg yëpp mhm. daanaka mën naa ne man maa ko def samay may sama am mën naa ne aw ak aw ma producteur yaa ngi dégg ci li ma am ak ci yàlla booleel ñu bëgg ma te yéene ma jàmm mhm. di ma jàppale ci seen doole mhm. may boole la ma am di ko defaat ci musique bi kon xam nga loolu mbëggeel rek moo ko waral. Mhm. bëgg aar moo ko waral parce que dañuy jël suñu alal di ko amee feneen di ko defaat ci musique bi. Mhm. voilà ñu bëgg suñuy fan si bég. dëggantaan. mais nag aussi buñ yàlla mën a producteur bu baax it bu gëm endurance. Mhm. Hmm? waaw ah mais damay jël parce que aussi yàlla mayul kenn may amee ah. production am na fu mu la am am na fu production métti na de sa euh, par exemple boo waree génnee single ñaata ci xaalis à près nga ciy dugal. Euh, bon mënu ma ko après quand même wax dëgg yàlla parce que musique moom. sa sa son bu mujj bi ñaata ñaata nga ci def. <laughs> wax dëgg yàlla bari na bari na parce que aussi xam nga tey dangay xool rek boo demee da ngay def da ngay fay studio. Mhm. fay say musicien comprendre nga. waaw. daf say daf say jaget. comprendre nga bari na bari na bari na bari na wax dëgg yàlla mais dañuy dolli sant yàlla rek quoi. Mhm. waaw bañ ko yàlla wërsëgalee ñu mën koo def quand même du dëgg. yàlla na yokk. ku ne Abdou Rass wax euh, Fatou Gueye Diouf seen collaboration. yàggoon na góoram nga woon muy sa jigéen ngeen ànd nekk ci aar bi. Euh, seen collaboration lan moo tax mu rompre. waaw déggoo li ma la wax. ah yow loolu mais yow loolu yow loolu xam nga lu ne sànq kenn du ko jeex nag xam nga diggante bu yàlla jeexal ala kulli aalen faw mu jeex quand même ok euh, da nga màgg bëgg a wala ah xëy na màgguma de waaye su sañoon wax dëgg yàlla di samay ndaw léegi mépp mel ma mel ko su ma sañoon képp ku fi woykat ma mel ni yow mhm. wala ma raw la bàkk si fàll dëggantaan waaw mais Abdou est-ce que nekk euh, parce que buñ ne Abdou Rassam xel day eh. taasu xel dem day dem ci euh, euh, kebetu bu neex est-ce que ah. di def loolu yomb na ah. est-ce que nekk góor di di di def genre woy boobu noonu yomb na ah xam nga man day man man day man day gentleman la Baye Fall la xam nga xam xam nga nag aar dafa yaatu moom mm-hmm. aar moom boo bëri ay facette mm-hmm. tey jii ni may mën a woyee woyu taasu comme mbaras ni ma ko génne woon mm-hmm. mais kooku man dama ko booleeg ay way bon mhm. man taagu ma dama ko booleeg ay way mhm. c'est-à-dire ni ma tegee samay thème samay way moo gaaw mhm. man taagu ma damay way man damay way de euh, dangay ngay da ngay way <laughs> <laughs> d'accord waaw alors euh, léegi ba tey ci li nga xamante ne mooy sa carrière jamono yi fan nga ci tollu à part euh, ñaari single yi nga xamante ni moom la def incha allah prochainement euh, loolu ngay ci lan nga nar a dem incha allah da ngay dem grand théâtre wala parce que Abdou nag ci wàllu woowa li nga ci dégg it bariwul. nga ne. waajal dem grand théâtre def show foofu noonu. déedéet. waaye gu ma ko de wax dëgg yàlla waaye mu ngi sama xel na lu waaw xam nga boo déggee ma ne waaye gu ma ko mooy dañoo nekk ci liggéey rek te loolu liggéey bu mag la laaj. Mhm. waaw en tout cas maa ngi làqatu sama ruq di liggéey. Hmm? Mhm. di doy loolu la ma am xam nga tey jii boo xoolee quatre-vingt-quatorze maa ngi woon Sorano. Mhm. yàlla defal yàlla tey tey tey boobu album beeg yàlla def ci jàmm du dëgg. lépp loo gis organisation la rek. waaw. buñ yàlla may ñu organiser ko incha allah rabi ñun béy sax jommuñu. Mhm. Euh, nee nañ au Sénégal euh, les rappeurs son beaucoup plus organisés que les mbalaxmaan nee nañ yéen euh, yi sax ñoo leen gën a organisé da ngeen désordonné yéen mbalaxmaan yi. <laughs> waaw baal nañ leen grave <laughs> baal nañ leen quoi. la dëgg la wala. déggu ma ne déggu ma ne baal leen. d'accord mm-hmm. alors est-ce que entente bi war tamit ci mbalaxmaan yi am na est-ce que yéen ngi dem leen te comme il faut. yoo am ne àdduna xam ku nekk ku nekk na ña ngi ko séqal mais bu du mbalax da nga naan nit rek xam aadama ni ku nekk ka nga séqal teraanga da dem leen teg moom. Mm-hmm. ay mbokk yoo xam ne maanaam am na ci mbokk yoo xam ne ay xarit lañu dañuy seetante. Mm-hmm. Hmm? mënuloo mënuloo mënuloo ànd ak ñëpp mënuñoo xaritoog ñëpp bu yàggee nga naa fexe ah. yow kan nga ci gën amal affinité ci milieu bi kan nga ci gën a amal ay euh, une bonne relation. non bari na bari na wax dëgg yàlla mënu ma ko lim nag bari na quoi bari na si ay ndaanaan yu bari mënu ma lim seen tur. Youssou Ndour. ah kooku nag wax dëgg yàlla maestro la moo wax dëgg yàlla. la wala. ah ma ne xamante xam na ma xam naa ko nii rek waaye wax dëgg yàlla sequ ñu yenn relation yi quoi. waaw waaw. d'accord. alors Abdou diggante deux deux mille ak deux deux mille ba deux mille vingt tey mën nañoo wax ne am nga presque vingt ans ak lu ko ëpp wala. Mm-hmm. aar bi. diggante deux mille. diggante deux mille. Mm-hmm. ba deux mille vingt. waaw. tey jii mën nañoo wax ne am nga lu toll ñaata at ci aar bi. wala ah déggoo déggoo ma ne man dama am à l'âge de neuf ans la am rek tàmbalee woy. bo ba léegi. waaye booba léegi maa ci aar bi di woy ah. am na fi 30 ah. ans. ah daanaka de. daanaka de wala mu ëpp kay ci milieu bi. Euh, ci diggante boobu euh, lan produire mu gën la neex. Euh, sama premier album. lu ko waral. parce que maman boobu dama ko bëggoon wax dëgg yàlla. Mhm. mois boobu gisuma woon lu def sama album Sénégal déglu ma quoi. Mhm. léegi bi nga ko defee succès ba ca waroon am na. waaw am na am na ndax la fait que mu am rek loolu moom sant yàlla la. d'accord alors est-ce que tey jii am nga ci am am nga regret ci li nga xamante ni mooy sa métier. déedéet parce que c'est le destin. Mhm. Mhm. ba su set ak la cee war a ci man. dëgg la sama jëmm ji ak la may suñu borom bi ma Mm-hmm. wallaay wallaay destin la ci man quoi. Uh-huh. parce que ba may woy sax musuma xalaat ne tey ji Sénégal dinañ ma xam ba àdduna bi di ma xam musuma ko xalaat. waaye. Mm-hmm. Abdou dernièrement tam gisuñ la lu bëri ci plateau télé yi ak rajo yi. waaw non mais gars yi ma ow rek am ni ma ooyee nii boo ma ooyee rek bu ma ku ma woo invitation ma wax ak yow ah ma wax Sénégal. Uh-huh. ku ma ci invité rek ma ñëw incha allah ren. Euh, animateurs yi euh, euh, lan moo waral woowuñ la tamit. ah loolu nag ñoom la concerné wax dëgg yàlla. mais yow jéemoo cee euh, entré en contact ak kenn. non man yàlla dogal na fii moom animateur bu fi nekk ci bëri xam xam naa xam nañ ma. sa son yi bu génnee nan ngay bi kon. ah mais dama leen di dama leen di woo ci nekk si li bi moo la war a jox. Mhm. bu dee single la ma ñëw fekk la ba fi nga nekk jox la ko. Mhm. avec plaisir nag jox la sa cër yëg la safoo la faale la. Mhm. waaw noonu laay def de amul kenn koo xamante ne maanaam seq naa yow mu yàlla wax dëgg yàlla. Mm-hmm. buñ buñ waroon jàppale artistes yi ah. Euh, mm. côté lay la la la lañ war a gën a jàppale artistes yi d'après yow. Euh, xanaa di leen invité ci seen i plateau yi. Mm-hmm. artistes yi nga xamante ni ñoom ñoo fi nekk di woy ku ci mel ni Abdourahmane mii. Uh-huh. nga di ko invité ci ci plateau bu mu mënti doon nag. Uh-huh. waaw muy ànd ak orchestre am di Sénégal seetaan. Uh-huh. bu dee rajo yi nga invité Abdourahmane bu dee télé yi nga invité Abdourahmane. Uh-huh. bu dee soirée live nga invité Abdourahmane ñu jàkkaarloo Abdourahmane ñu xool. d'accord eh, est-ce que frustration du am bu fekkente ne ni yéen. Euh, artistes yi ngeen yi da ngeen di gis tout le temps ñuy invité benn artiste rek loolu qu'est-ce que ça fait. mais da koy sant yàlla rek dañuy sant suñu borom rek te xam ne moom mbir mi moom noonu la demee adduna moom adduna mm-hmm. xam nga ñëpp a a dem kaw suuf du ñàkk Mm-hmm. am na si ñoo xamante ni suñu borom moo leen dimbale du dëgg. waaw xam nga xam nga dafa am loo xamante ni wax la ko tey gis nga wërsëg. Mm-hmm. dañ koy judduwaale. Mm-hmm. mais barke moom dañ koy sàkk. dëgg la. léegi instant yi prochain projet bi lan la un album complet waaw mais ñun de saa su ne ñu ngi liggéey en tout ñu ngi liggéey. ñu ngi liggéey yàkkamtuwuñu. Uh-huh. aar moom yaakaar naa ne dañ cee nekk nii rek mais wax dëgg yàlla bési set ak yàlla lam ñuy wan quoi. Ah. Ah. coronavirus bi ñaata ñaata ci xaalis la la ñàkkloo. yii bari na barki Seydina Mouhamad bari na de loolu de moom dëgg parce que dama organisé woon le 7 mars. Diourbel sama dëkk bi nga xamante ni moom laay tiitaroo fa laa juddoo. Mm-hmm. fas yéene woon def sargal jigéen. Mm-hmm. Euh, ba ñaari singal yi génnee clip bi génn ma ne bala may tëgg fenn damay dem sama damay dem Diourbel. Mm-hmm. Euh, vraiment sarg def sargal jigéen tombeeg le 7 mars. Mhm. Euh, yàlla dogal corona bi ñëw ñu lépp. Mhm. ñàkk naa ci xaalis mais alhamdulilah rabbi alamin mhm. parce que euh, jàmmi Sénégal jàmmi àdduna moo ma dàqal loolu lépp. Macky Sall neen dina jàppale monde culturel bi de yi yaakaar ngaa jot ci xaalis bi. <laughs> ah yaakaar naa ko yaakaar naa comme sama nawle yëpp ah. Uh-huh. pourquoi pas. Uh-huh. parce que li ñuy def moom naay des waaw xanaa tey di ñaan yàlla rek euh, ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñu jiite. Uh-huh. ah te mën a joxe ci Macky Sall doon ay ndaanaan mais nañ seet yeneen ak si nga xamante ñoom ñoo nekk ci suuf rek. Uh-huh. bañ leen a fàtte. dëggantaan loolu moo am solo parce que nag aussi ah ku lépp lekk lépp jóge fi de. Uh-huh. il faut partager ko. d'accord euh, ban expérience moo la a neex ci sa carrière. Eh, doylu doylu damaa doylu loolu damaa doylu loolu da neex ci yow loolu daf ma neex trop ci man parce que tey xëccoowu ma lenn voilà <laughs> Abdourass nee tamit euh, xale jigéen ñi sonal nañ la ah, ah c'est normal c'est normal seen coxee la bëgg rek te man moom xam nga jigéen moom yàlla ko manqué tamit <laughs> am nga ñaata soxna non man actuellement benn soxna laa yor nag. ah. Hmm. di nga takk ñaare. benn benn laa benn. di ngay takk ñaare. Ah, mais bu ko yàlla ci man dama koy def parce que jullit laa ah. maama yàlla l'islam benn ñaar ñett ba ñeent. ma ni ko mbaa madame toogul sa wet. ma ne bu fi madame wax. Ah, xam naa dama lay bàyyi. ah waaw mais booy ah. de. bu ma bàyyi laa wax. non duma la mës a bàyyi dañuy dem ba beneen yoon. ah kon kon kon tuq na. basan yi. très bien ñu ràcc ah. ràcc la ñuy def. waaw mais maa ngi lay remercier di ñaanal Sénégal jàmm ah. ngay lancé quel est dernier mot. xanaa di ñaan yàlla corona bi yàlla nag suñu borom jugeel jëlee ci barke Seydina Muhammad. Mm-hmm. ñaan yàlla Covid 19 bi nga xamante ni moo lëmbee àdduna ah. <laughs> yàlla na ko suñu borom. jële fii jëlee ko fu mu nekkoon mu xoolal fa mu nekkoon mu nekk fa di fa nelaw bañ faa bañ faa jugeeti nag. dëggantaan. loolu daal laay ñaan di ñaan yàlla ñu gën a laabal xol yi. Mhm. a rafetal xol yi gën a yéenante parce que nag Sénégal vraiment nit dañuy wax mais yàlla mu yàlla baal mais xol yi dafa defee fet. Mhm. voilà li ngay boo gisee sa nawle lañ koy wax ak boo bu la dëddoo la la koy séq ak moom nekkul benn. dëggantaan. lu ñuy wax ànd jaayante wéet jëwante mhm. voilà loolu lañ war a dindi fii di ñaan yàlla képp koo xamante ni jikko woo nga noonu nga dindi ko te yàlla tax problème la parce que dee yi bari na feebar yi bari na mhm. comprendre nga dañoo war a delluwaat suñu xel ci yàlla suñu borom mhm. rafetal xol yi te yàlla rek tax tey dimbalante ban bàyyi ànd jaayante wéet jëwante nit ku nekk cërëm yàlla moo ko ko jox nga xoolal nga nangul ko loolu te yàlla rek tax soo ko mënee dimbale nga dimbale ko waaye bul ko yàqal. dëgg la. loolu moo am solo ci àdduna te ñu rafetal ànd bi. Mhm. waaw parce que Sénégal nag wax dëgg yàlla ah. mais lu ñu am nii tubaab macha allah dañ ko war a sant si yàlla suñu borom ah. mais mbaa yéen a ngi takk masque seen côté yooyu. bu baax a baax a baax a baax ñu ngi takk masque. moo uh-huh. ñu génn ñu ngi raxasu ndox saabu ah. Uh-huh. lépp lu mu laaj daal corona bi daal lépp lu mu laaj wax dëgg yàlla ñu ngi ñu ngi ne dèjà xam nga ne xam ne lii neexul nga nekk see ma nekk see ñu téléphone. ah dëgg dëgg. voilà parce que corona bee ko waral. waaw <laughs> en tout cas c'était un plaisir de t'avoir sur sur Abdou. moi aussi vraiment. waa Abdou noo santati sax. man wañ galo man wañ galo wandaake laa sant wañ. Abdouraas wañ. Abdouraas wañ. waaw. ah euh, Maa Lawbe Samba. non non maalaw labak maalaw birima maalaw may sa tende joor wudi baye pende baye tapp mi ki waa kay weñ wa man askanu loobe ku ma si bokkulul booy boo ñu xool a alaaji fàllu jaajëf waaw waaw <laughs> man maay loobe Sénégal <laughs> kontaan naa Abdou. jërëjëf merci beaucoup. auditeurs donc c'était à l'instant sur les ondes de la radio Rewmi FM jigi kon euh, ma delloo la leen ngay allah jox leen rendez-vous beneen beneen ak beneen artiste euh, sur la sur donc Rewmi People et très bon week chez vous.